Siteu Papa Sow. Papa Sow komba bu gaaw ci sama calcul lay nekk. <laughs> mosul la léegi dootul wax dara lu mu gis calcul am lay wax. waaw ci sama calcul xam nga lu tax. <laughs> Euh. combat bu gaaw lay nekk. dégg naa ci dóor mu daanu mën naa am de da ngay ah déet wax dëgg yàlla man gisuma lool de. Hmm. waaw Papa Sow daal mbër la moo nga xam ni mbër mu mag la te yàlla may na ko. te boroomi bokk la te ci defet la jóge am na lu koy xaar Siteu su ma juumul ci victoire la jóge walla ci defet hmm, ci ndam la jóge te damay seetaan ay vidéo ku baax la hmm. waaw yi may dégg mu di ko wax noonu hmm. nit ñi di ko jël di ko def ci eh, réseaux sociaux yi esthétique yooyu noonu waaw gëm naa ne li mu am mi ngi koy partagé ak doomu aadama yi te dégg naa mu ni nit ñëw na këram di ko seet Euh, ngir di ko wax soxla. Hmm. mu génn jox ko lam ko jox xeeb ko jàpp naa ni ku baax rek mooy def noonu. Sénégal walaay ñi topp mbër yi ñoo bëgg a indi ay détails yoo nga xam ne amu rek mais mbër yi ñoom ñëpp benn lañ. ay xol yu rafet la ñu yor parce que ku ci nekk da ngay jóg di solidarité hmm. ak sa moroom hmm. bu nit amee jafe-jafe kon loolu mooy Sénégal mooy Sénégal waaw mooy Sénégal daal te carrière mbër yàggul. kon nag xale bu ci ànd ak mbër ba dugg ci loo nga xam ne waroo cee dugg mbër ma dina dem toog ay kilimam di ko ub yow mi nga xamante ni nag da indil jafe-jafe xam nga léeg-léeg sax da nekk ci biir géew bi xale yi di indi ay saaga wala di indi ay détails te dama leen di waxaat baatin du jéggale te nit léeg-léeg di nga ko def loo nga xamante ni moom jéggalu la mm. nga dem nga jëflante ak baam waxi baatin nag laa lay wax nii mm-hmm. waaw